mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile xibaar yi Ousmane Sonko mi ñu wax ni kon dafa rek war a bokk ci liste électorale yi mu mel ni kon Sénat moom àdduna ci mbir mile ginnaaw Ousmane Sonko mi fi mu nekk ni application ak dogal bi nga xam ni tribunal bu Ziguinchor daal dina koy jël ngir nag tulam dal di rek bokk ci liste électorale yi mu mel ni kon loolee fi mu nekk ni nag moom mën nañoo xaar rek agent judiciaire bu état bi ginnaaw la nga xam ni moom cour suprême ndax boo leen fàttalikoo moom nag dafa bañoon lu nu mel ginnaaw gi mu ni kon si fay moom juge bile li mu wax fu mu ko daal di teg avocat yu nag Ousmane Sonko yi sax nag ñoom woolu nañu rek commission électorale nationale autonome maanaam Sénat Sénat moom mi saytu wàllu élection yi lee kon jëm rek ci seen client bi ginnaaw rek lu ñeel kon fiche de parrainage yi nga xam ni war na ko am ndax suñu naataango yi bile di waa source a ñoom nee nañu ginnaaw sujet bi nga xam ni kon ci àllarba bi daal dina koy wax ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre mu mel ni kon bu ñu sukkandikoo ci ñoom ba tey mbir moomee kon dina ci àddu nag foofe ca pencum ndaw réew ma ci nag ayu bés yi di ñëw ca noonee itam rek ña ngay topp mbir mi di leen tëggat ginnaaw rek correspondance yi nga xam ni kon Ousmane Sonko milee am na ko waaye itam rek di bàyyi xel euh, kuréel gi nga xam ni kon ñoom ñooy saytu rek wàllu élection yi de. ndey Fatou Fall ñu gën koo xam ci Falla Fleur daal di nañ koy bàyyi ginnaaw kon. mbir yi nga xam ni tegoon nañ ko ci ndoddam mu nekk lu doy waar moom sax mu nangu ni kon moo def lu nu mel ca noone kon ñetti rekk weeru kaso lañ ko daal di daanoon waaye mu mel ni kon loolee fi mu nekk nii day rek gën a yokk jëm ci wàllu détention provisoire bi maanaam rek kon moom du am bàyyi ndigunu ko benn yoon kon bu mu ko xalaata am ginnaaw googee kon ñu ni beneen mandat dépôt lañu rek tegoon ci ndoddam mu mel ni kon sax nag ci fanweeri fan ci weeru octobre bi lee dina taxaw kon ci kanamu tribunal bi ñu daal di koy rek jugé ci flagrant délit maître Moussa Sarr avocat la moo daal di xamle li ñu mel la